wax ni rek tey ñu ngi euh, célébrer comme nico communauté internationale bi la fête du travail ren syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire ci célébration fête bi dañoo tànn jël suñuy jigen suñuy sœur ñi nga xam ne ci convention nationale des femmes tek leen ci kanam ne leen fetu ren yeen yéen a ko moom wante mbir mi def di lo xamné du fête rek ak feetu mais def di fête ak waxtaan motax biñuy waxtaan ci situation famille de dañu jàpp ni comme syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire wax dëgg machallah jigen yi bari nañ fa trop fay jot nak ñu xol seeni préoccupation mën leen jël en charge motax ma rafetlu memorandum bi nga xamné présidente convention nationale des femmes def na ko tey présenté ko ci kanamu assemblée bi mais mémorandum bobu dama wax ni désormais mémorandum mu la te dinañ ko défendre devant le gouvernement du Sénégal. xam nga jigen ñi mom buñ ko waxé buñ ko waxul sen situation congé de maternité war nañ ko xoolaat buñ ko waxé buñ ko waxul ñom bëgg nañu mëna jël gëna jël en charge seeni dom ak seeni borom kër euh, autorité parentale bi xamna tay am nañ ko acquis mais niñ koy doxale ba léegi des na lu bëri xam naa tamit am tey jigéen gu yore doom nga xam ne daf koy nampal mais bu ko bàyyee ci kër ga nekk école xelam mu ngi ci doomam est-ce que jotul ci suñuy école yi ñu aménager ay lieux yoo xam ne ñi nga xam ne dañu yore seeni doom mais dinañ mën a teg foofu seen doom que de temps en temps ñu ñëw xool leen donc il faut dafa jot ñu xool jigéen ni ko yàlla binde ñu xool naka la ñu mën a def pour que liguey bi nga xamné mom la société bi xaar ci mom mais ñu ñu may ko conditions yi mëna permettre mu def liguey bobu